السلام عليكم ورحمة الله بوكي نيغ لين نيغ دي زيار لين بالو حق نيان سبحانه وتعالى بولو ني حديث تايبي دا فاي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن ربكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم حديث كان تلمه جابر بن عبد الله وخنا ينتي صلى الله عليه وسلم إيه ينتني لين خمني سين برام كان لا ماي برام سبحانه وتعالى لين خمني جن لنتي أمول تدي جنتي أراب أكدو الأراب ولا جل ولا كن كدو الأراب أكين خاني ماي أراب جن لنتي أمول تدي جنتي نتكو خانكو أكنيول ولا جن نتكو ويخ أكنيول wala ci diggante gën a lante amul ci diggante nit ku ñuul ak ku weex lu dul ci ragal yàlla mu teg ca ne la gën a ragal yàlla rek kooku ma la gën kon yonent bi moo tëj moo tëj moo tëj wax ji adduna bi bépp jullit bu bëgg a bokk ci nit ñu baax ñi moo xam ñi xam baayam wala xamuñu maamam moo xam fii la juddoo wala mu juddoo Amérique wala mu juddoo Kirikoro bu saxee ci ragal yàlla te topp yàlla subhaanahu wa taala nekk ci li yàlla digle bàyyi li mu tere day bokk jaam yi gën a foor ci jaamu yàlla yi nañ fi jamono yële ne boo demee ci saxaaba yi ku mel ni Bilaal ibnu Rabaax nit ku ñuul la woon ba pare jaam la woon nga jël ku mel ni Ammaar ibnu Yaasin même chose gi jël ku mel ni nga jël ku mel ni Zayd même woon waaye bokk nañu fi mu ne ñoo xam ci nit ñi nga xam ni kenn mënatu leen dab ci kaw suuf moo xam nit ku ñuul ak nit ku weex ak nit ku xonq ci yam li mu tekki rek mooy lislaam def di def di ci yàlla ñi nga xamante ni ñooy nit ñi gën a kawe ci yàlla mooy nit ñi ragal yàlla ba tax na kon jullit bi loolu la war di bàyyi xel fu mu toll ñu moytu li ñuy tuddee boddikonte ci xeet mooy tudde xeebante amaana yaa ngi xeeb nit fekk moo la gën fuuf amaana yaa ngi tuutal nit fekk moo la gën fuuf ndax yàlla yoonam nekkul ci xeet wala ku xonq wala ku weex wala ku ñuul loolu amul solo amul solo loolu ci gis-gisu jaahiliya la maanaam képp bépp nit buy xool nit di ko xoolee moom day ci askano nangam la bokk wala ci nangam wala maa ko wala nangam yëgal ni moom ci boppam esprit jaahiliya la bokk moom ci boppam ab jaahil la te yëgugu ko jaahiliya mooy ñi nga xam ni dañ daan jaamu xërëm yi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñi nga xamante ni dañoo xeeboon ñi àndoon ak yonent bi jàppaleen ay jaam ni ñi nit ñu tekkiwul dala seen bàyyi xamuñu leen amuñu xaalis nekkuñu ñoo xamante ni ñu am daraja lañ ci àdduna bépp nit bu am esprit boobu na yëg ni moom ñoo abu jahlin ñoo bokk ñoom ñoo yam ñoo yem presque daanaka benn lañ ndax loolu esprit jahiliya la o defee kooku kenn du ko roy kenn du ko topp kenn du ko déglu ndax boo ko toppee mu sànk la nañu góorgóorlu suñu bopp bu baax se yar suñu bopp yar suñu doxalin yar suñu làmmañ bu ñu jiitee ay nit wala ñu jiite mbooloo wala ñi ñi am kàddu ñu bayi xel bu baax jaamu yàlla yi fonk leen waaye tamit xam ni yàlla li mu gën a fonk ci biir jaama mi la koy def ci ñaan la mooy ñi nga xam ne ñoo ñu ko ragal ñu bàyyi ci xel bu baax a baax te góorgóorlu suñu bopp yàlla boole ñu ci ñi nga xam ne ñooy jaam yi gën ci jaamam yi loolu nag du loo xam ne lu ñuy gis la wala ñu naan diw diway baayam wala diway maam wala ci askano nangam la bokk loolu benn temple la boo xam ne ci biir lay nekk kooku diggante yàlla ak jaam la doolu diggante yàlla ak jaam bi keneen keneen xamu ci mën naa weex mën naa xonq mën naa ñuul mën naa bëla kooku yoonu yàlla nekku ci لولو لام صلى على جلتي لي تبعي خلف باخ يعني يلا بني دمبلي اقول قولي هذا واصغر العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته